di ñaanal mbokk taalibe yi nekk yëpp magal bu baax ak wax ne suñu sabab sabab rajo bi tey mooy euh, waxtaane doxalinu kër euh, doxalinu kër gi ci ay fànn yoo xam ne nii tuuri yi nga ne nii ñoo ma ñoo ci nara waxtaan euh, muy sëriñ ci sama tutóor muy Serigne Bassirou Faye nar a waxtaan ci daara yi nga xam ne nii moom la sëñ bi yore ngaa la ko xamee euh, ci kuréel yooyu dinañ ci waxtaan nga xam ne moom it xam nañ ko bu baax ci liggéeyu kër euh, am na tamit ci biir kër bi solo bari na ci jigéen ñi solo sa daara yi daaru ak doxalin bi suñu basi moom bisimilah borom waajalal ñu yor seen biir war leen a dimbali teg leen ci yoonu njub dox seen diggante ak seen borom xettali leen jële leen ci ak réer yóbbu leen ci ak xam loolu yàlla moom la namm ci jaam yi waaye jaam yëpp mënandoo wuñ ko suñu borom am na ñu mu tàggat ci biir jaam yi yónni leen ñu nekk ay ndawam ñoom ñoo ko yoral loolu ba ca bis liggéey boobu nag mm, ci la euh, Cheikhouna Cheikh Ahmad Bamba ñëwee bu mu ñëwee euh, daal di woote li woote yoonu iraada ñu nga xam ne ñoo namm yàlla soobu ci ànd ci ak moom waaye nag ci biir yitte ak xam-xam am yitte faaw da ngay am xam soo amee yitte rek te xamoo mën naa sooxe soo xamee te amoo yitte mën naa sooxe kon faw da ngay am yitte am xam-xam loolu mooy tajdiid lu bees yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba indi day wax ci fu bind ne daat nii ila xatti nasihatu lil wara li wajhi allazi xaada li ajran wa asafa li tax may bind dama bëgg mbindeef yi gindi ko dama leen di laaya biiree bëgg ñu jëriñu ñu xam li war a xam ci seen diggante ak seen boroom xam li war a xam seen diggante ak seen moroom xam li ñu war a xam seen diggante loolu nag bu ñu leen seetaanee duñ ko xam te kon ñi ko xam te waxuñu leen ko loolu day nekk responsabilité ci seen kaw bi ko defee Sëriñ Touba yenu yeen boobu bi jamono weesoo si loolu ñi fi ne wuutu ko ci njabootam ñoom tamit jël lool yi di ko wéyal xam na sëñ Saliou Mbacké ci yar doomu aadama ci toqi ko ci jàngal ko ba mu ràññee ba xam ci bind ginnaaw loolu tam mbir di dox ba tege ci loxol njabootam Cheikh Mouhamadul Mourtada bokk ci ah bi mu ci bokkee tam mu am gisinu àdduna li ko yàlla defee mooy diiru jamono ju ne euh, méthodologie wàllum day soppeeku ci fànn yu bari fànn bii di fànnu xam-xam muccul ci yooyu mu daal am gisin boo xam ne dàqantewul ak lislaam dàqantewul lii gën a dëgëral loolu tam mooy bu xoolee ci ginnaaw xalifatul am Cheikh Mouhamadul Mountakha bi nga xamee ne yàlla sunu borom dogal na mu nekk ci kanamu njaboot bi woote woote bu rëy ngir def li ñuy tuddee tajdid beesal xeetu njàngaleem maanaam jamono am na yu bari yu laaj yoo xam ne bu njëkk xam ne jamono egg na foo xam ne ku bëgg a jiite am mbooloo bëgg leen a teg ci yoonu jub tam faaw ànd ak jamono ci li nga xam ne iraada bañu ko mooy yoonu murit bañu ko akuk taalibe ak lislaam lis loolu la waaye lislaam mooy murit bu ko defee mu daal di yëkkati liggéey boobu daal di koy wax ni ko ñëpp déggee nga xam ne dañ fay eh, eh, wattu li nga xam ne mooy cosaan ci yoon bi waaye indi beesal yi nga xam ne mënut a ñàkk ci doomu aadama mu xam ko mu mel ni que loolu ndigal lay doon kon ci mboolem njaboot gi ci bunt boobu Cheikh Mouhamadul Mourtada tam daal di yëkkati liggéey boobu di ko def ci anamam ak ñi ko yàlla booleel moom it mu daal di tàmbali ab liggéey ci ngaaw daara joo xam ne Serigne Saliou moo ko fi bàyyi woon ñu daal di koy tàmbali daal koy yeesal ba nga xam ne xar bi day yor beneen melo ñu daal di tàmbali di càmbar programme bi nga xam ne moom lañ fa war a jàng jàngal ko ña nga xam ne ñoo fay ñëw ña fay ñëw di fa jàng ñi woon ci daara yi ba yàlla dogal na mokkal nañ nga ne nit bu na ñu jàngal ko diine laaj na ñu jàngal ko tawxiid jàngal ko fiq jàngal ko tasawuf jàngal ko yoon bi mu ne mu xam ko lool jàngal ko tamit ci xarala yu bees yi loolu lépp lislaam dàq ko ñu xam ne loolu mënut a mu daal yëkkati liggéey boobu def ko programme yu wóor yoo xam ne ay xalaat yu ñor la bi ñu yeesalee bâtiment bi ñu fas yéene fa dugal xeetu njàngale yooyu nga xam ne liñ ci bëgg mooy nit ki bu fa jógee doon nit ku mat sëkk ci fànn yëpp ci fànn alquran ci fànn xeeti xam-xamu diine yi waaye ci fànn xeeti xam-xami àdduna yi lu kenn du ko mën a jëm fu ne fu mu dem rek mën a ànd ak ñoom ci loola ci li nga xam ne lislaam bañu ko ndax bu njëkk loolu rëq-rëq mooy dañ daan daan jàng ay mbir bay ba yeewu waaye benn fànn rek lañuy la ñuy waaye léegi àdduna dafa weesu noonu àdduna fi mu toll mooy nit ki mën naa xamandoo lu bare bare mu bu ma nee xamandoo lu bëree bëri nag jamono laaj ko te defaloo ko te te man ci dara day mel ni xeetu dégg nga gisin bu gàtt lay lay xaw doon waaye yàlla mosoon ko ci loolu mu gis fi àdduna toll mu daal koy eh, taxawal eh, liggéey boobu bëgg cee dimbali ndongo yi liggéeyal ci yàlla liggéeyal ci Serigne Touba loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo nekk gaawu si wàllum pédagogie. Euh, ni ñu koy doxalee nag mooy ndongo yi bu ñu ñëwee euh, mokkal alquranul karim dañuy tàmbali di leen jàngal cére yi nga xam ne seen Touba taalif na ko ndax Serigne Touba daanaka xeeti xam-xam yi nga xam ne moo ne ci diine yëpp jàngal na ko boo bëggee jàng tawhid bind na ci lu doy sëkk. Euh, xeeti xaw xam-xami fiq yi naka noonu xeeti xam-xamu tasawuf yi naka noonu bu ñu leen jàngalee yi mënut a ñàkk ci yooyu. am na yeneen yu ci ciy yoo xam ne ci ñiy gëstu wàllu pédagogie nga xam ne loolu mënta ñàkk dinañ ko dugal ci programme yooyu du booleel leen ko ci ngir seen njàng gën a jàppandi te du yàq dara ci eh, enseignement professionnel bi professionnel bi nga xam ne dañ ko ciy dolli moom it ngir nit ki dafa war a mën dara ndax ndax nit doomu aadama dafa war a xam dara waaye dafa war a mën dara tam ñaar yooyu lañu boole foofu ah kon ñu xam ne daal euh, Cheikh Mouhamadul Mourtada ci yoon woowu mu fekkoon euh, euh, baay ak maam yi ci la tege di ko gën a yeesal muy dëppoo ak jamono ci biir ak taalibe ak biir lislaam loolu faaw ñu leeral ko te dana fexe ba li arab yi di wax xifzu turaas maanaam li ñuy tuddee patrimoine xam nga yoon wi ñu nekk patrimoine la dina fexe ba patrimoine bi des fi dégg nga ñu jàngal leen lu yees yi nga xam ne mënta ñàkk ci ci àdduna ba bu ñu fiy jógee doomu aadama ñaari bunt yi nga xam ne ñoo ko seq benn bu ci nekk day mat sëkk day jàng wàllu ruuxam mooy tarbiya di nga koy defal di ko tarqiya ci ci ci anamam waaye danañ ko tàggat tam ci wàllu euh, xel ba nga xam ne euh, bu fi jógee ruuxam dana dund waaye xelam tamit dana dund mooy li nga xam ne moo aju ci wàllu àdduna li ci des mooy mbooloo bi nga xam ne ñoo ànd ak moom xam sëriñ bi fu mu ne xam ne liggéey bu toll lii lay yëkkati ñoom ñëpp ñu xamandoo ko am niveau information boobu maanaam xam ne tam ñoom lay dimbali seeni njaboot lay dimbali njabootu euh, lislaam lay dimbali bu ko defee kenn ku nekk xam ne loolu yëfi boppam la da ko war a xam war cee dox war cee wax war ko téye ak ñaari loxo ndax loolu dafa am solo ndaxte àdduna yàlla bind ko ci abas yàlla bind ko ci fo yàlla li mu ko bind rek mooy doomu aadama yi dañ ko fi wuutu ab diir doog a doog a dem feneen diggante boobu nag doomu adama bi du ko war a exploiter suñu am njëriñ suñu am njëriñ nag mooy ñu former leen formation bu baax loolu nag ci la nekk kon na njaboot gépp war nañoo xam loolu euh, ba luñ ci yëkkatee ci rek euh, ñëpp xam ne seen mbiru bopp la dégg nga ñu taatal ko téye ko ak seen ñaari loxo di ko lijjanti sax di xam dégg nga dëgg-dëgg doxalin yi ci wàllu pédagogie ni mu demee ndax ñu mën cee yee ñi nga xam ne xëy na eggu egguñu ci ci niveau loolu moo nekkoon euh, ay euh, information sëñ bi yoo xam ne jàppoon naa ne mbooloo mi war nañ koo xam ñoom ñëpp war nañ koo xam. li sëriñ bi yëkkati na ko te foofu la toll. Euh, liñ ci dolliwaat tuuti di mooy ñu xam ne euh, liggéey boobu tamit yemut ci ngaabu waaye ci daara yëpp lañ ko bëgg a yeggale sëriñ bi da koy doog a tàmbali waaye bu soobee yàlla dañ ko bëgg a wéyal dégg nga ba mu ba mu daj daara yëpp bu soobee yàlla ba xam naa ne sëñ euh, Fodé bu ñëwee nga xam ne xëy na am na ci yoo xam ne moom mbirum la moo ko gën a jagoo moom dana ko dana ko leeral ba mu gën leeral jërë ngeen jëf salaamaaleykum. Euh, jërëjëf sëñ Bassirou Faye ñu ngi lay sant bu baax ci leeraayu waxtaan wi ak euh, xam-xam bi di wax ne wax na fi lu ci mbirum jàng nga xam ne wax na ko Cheikh Mamadou Moustapha daf ko doon na ay maamam ci baayam bu sell bi Cheikh Saliou Ahmadou ñëw ci moom téye ko war ko yeesal ba mu mu ñu waxee yeesal nag am ay yoo xam ne nii dina ci dugg muy euh, ay soppiku yoo xam ne nii wax nga ko léegi ci wàllum ci lay dem te loolu defe naa Serigne Fodé Ndiaye ba tey biir gaaw moom moo ci gën a màcc xam xam-xam moo ci gën a màcc pour ñu ci wax ñu jox ko kàddu bi rek pour mu indi ñu leeral ci soppiku yooyu nga xam ne nii gaaw moom la ñu laaj pour doon euh, bërëbu jàngukaay boo xam ni ñu fi bàyyi woon nga continuer di dans la modernité jërëjëf sëñ bi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di tàmbali ci ñaanal sunu sang bi Cheikh Mouhamad Mourtada mu yàgg fi lool te ànd ak ko ñaanal li nga mu am ci lu kaw njort comme ni ko jëwriñ waxee li nga xamante ni nii moo tax sëñ bi sumb liggéeyu ngaabu bi mooy jàngale bi waaye buñ ne jàngale dafa am lu war a àndal ndax nit ki sàkku xam-xam am na ci benn cadre boo xamante ne ci la war a évoluer muy cadre bu taw féexee ngir mu mën a nekk à ngir xam-xam boobu gën a mën a jàppale ci ci moom yeesalaat bërëb bi te yeesal gi du doon yeesal koo xam ne da ngay ñëw rek daal di jof liggéey bi daal dem waaye daanaka yeesal gu yaatu lay doon bu toogee ndaxte biñ ñëwee lépp loo xam ne te ne fekk nañ ko ba lu dul jëmmi bâtiment bi lépp dañ kaa defaraat moo xam lu tàmbali ci euh, defaraat wàllum électricité bi defaraat wàllum plomb lépp lu koy bunt fenêtre rek menuiserie yëpp ñu tëggiwaat ko peinture bi ñu yeesalaat ko lu jëm ci wàllu étanchéité ñu defaraat ko maanaam tabax képp moo moo fa amoon te am na fa sax ndax booy xool am na ci euh, lu mel ne wane bi moom dañ kaa tabaxaat moo wutee nga fa lu fa nekkoon donc maanaam ginnaaw jëmmi tabax lépp loo xam ne dañ koy liggéey ci bâtiment rek muy électricité di plomberie di carrelage di peinture di étanchéité lépp defaat defaat nañ ko ci. ni nga xam ne nag noonu la bâtiment yi tëddee ak jëmmi daara ji booy xool ñaari ñaari wer la comme nit buñ ko mënee misaal daanaka ni keesu xelkom yi di tëddee waaye xam na aw am wuti ci xeetu plan waaye booy xool kees gi nga xam ne fa lañ tàmbalee. dafa nekk ci ay bâtiment mu ngi war a ci euh, juróomi bâtiment ñetti bâtiment yu mag yoo ci nekk euh, ñaari bâtiment yi am na ñaari salle de classe yu ci cinquante mètres ak yeneen juróom benn xam ne ñu ngi toll ci vingt cinq mètres carrés ak beneen bâtiment yooyu noonu war nañ fa def lu jëm ci wàllu jàngale bi ak wàllu hébergement bi jàngale bi nag buñ koy wax am na service euh, administratif am na lu jëm ci wàllum euh, enseignement bi carrément war naa am tamit lu mel ni salle informatique nga xam ne comme ni ko sëñ Bassirou waxee ci la ci la bokk yeneen bâtiment yu ndaw yi nga xam ne euh, benn boo ko nattee mu ngi toll ci ay cinquante mètres carrés yooyu yëpp euh, war nañ faa def ay magasin ak euh, xeetu cuisine yu yaatu ndax loo xam ne la dañuy jàpp ne ay mbooloo ñoo ko ñoo ko war a def ak ki wane kii yeesal nga xam ne mu ngi toll ci juróom-ñett ak ay xeetu jàppkat loolu nag buñ koy xool ci genn wet rek la ne liggéey boobu nag buñ ko tàmbalee ba xayma ko moo doon toll ci fanweeri million ak ñaar maanaam 32 millions ci biñ ko xayma maanaam loolu nag euh, jàppandi na ba liggéey nañ ko ba fi mu toll nii ñu ngi ci quatre vingt quinze pour cent boo xool te xaw nañoo taxaw ndax nawet bi bi demee noonu waaye daanaka li fa des ci liggéey lu lu lu ndaw la te ñu war jàpp ne loolu bu wéyee am na li nga xam ne moom la ñuy wax équipement yi ndax euh, dortoir yeeg. Euh, équipement salle informatique yëpp jumtukaay yi nga xam ne ni ñuy jàng rek moom la ñuy moom la jëfandikoo xeet yooyu noonu yëpp tamit war na cee war na cee topp te booy xool loolu xayma ni bi ñu ko defee moo ngi tolloon ci fukki million ak juróom te ñëpp xam nañ it liggéey bi ni muy demee maanaam euh, mbokki taal bi ñëpp ñoom ñoo koy barkeelu ngir loolu ngir loolu mën a jàppale donc def nañ ci Pastef te. mu ngi dox bu bu nga xam ne ñu ngi ko tàmbali woon ci weeru décembre bi ñu génn te wax dëgg liggéey bi dox na ci ay jéego yu am solo waaye ñuy xam ne tamit noonu ñu ko defee ci genn wet bi maanaam jëmmi daara bi yëpp lañ war a lañ war mu wees na cinquante millions yooyu maanaam ko defee ci genn wet gi jamono yi noonu lañ ko war a defee ci ci geneen wet gi noonu la ko sëñ bi leerale woon ñu waaye ñuy xam ne daal lépp lu jëm ci wàllu liggéey moom maanaam amul bet xeetu jàngalekaay maanaam yi xew ci jamono maanaam yu yeesu bi ñu ko doon méngale dañ naan ay école privée waaye yu demee noonu lépp wala kii ay ay lycée yooyu noonu maanaam lépp li nga xam ne mooy jumtuwaay te nekk ñooñu ñuy jàng ci wàllu nasaraan li ko jëfandikoo foofee ni ko ñoom ñoom am nañ ko te noonu lañ ko noonu lañ ko liggéeyee xanaa di ñaan suñu may ñu rek ñu yeggali ko bu sumbaat yeneen ni ko sëñ Basiir waxee ndax lii ak tàmbali rek ci ngaaw waaye am na yeneen liggéey ak yeneen yu war a ñëw bu ko defee mbokk taal bi xamee ko noonu di santaat bu baax tey sant bu baax di gërëm di wax ne leeral yi am na solo trop di wax euh, mbokk taalib yëpp euh, liggéey bëri ci foofu la toll parce que sëñ bi bu fekkee moom moo suñu liggéey bi tamit bu ci dajee am wàll ñu ngi ñu am ci wàll ñu góor a góorgóorlu ba nga xam ne nii suñu wàll du du du des gannaaw ñu def ci suñu kenn kàttan di wax ne mbirum yar ak euh, jàngale moom la mooy cosaanu kër gi te loolu sax moo tax ñu tegoon fi benn association boo xam ne nii dafa tudd Iraada boo xam ne day yëngu ci fànn googu rek lay yëngatu te nga xam ne nii sëriñ euh, Doudou Diop mi sama càmmoñ moom euh, lu bëri moom moo ko ci yor lu bëri moom moo ko ci xam ñu bàyyi ko mu indil ñu ci ay leeral rek ci association boobu doxalinam ak formato sëñ Doudou Diop. salaamaaleykum wa rahmatulah. mbokku taalibe yi ñu ngi di ziar. di tàmbali di ziar bi ci suñu sang bi Cheikh Mouhamadou Mourtada di ñaan uh, suñu borom defal ko tawfeex mu yàggal ko fi lool mu ànd ak moom ci liggéey bi. xanaa di bëgg jukki lenn ci ay liggéey yi nga xam ne def nañ ko ci kuréel boobu ñuy wax uh, Al Irada. y a association boo xam ne ñu ngi ko créé woon ci 2011 euh, ci ndigalal sëriñ bi juin 2011 tàmbali euh, def création bi waaye ci 2013 la activité yi door a door ci activité yooyu nag amoon na lu mel ni ay euh, activité économique lu mel ni ay mbay ak yu mel noonu ci activité yu mujj yi euh, li ci gën a am solo xam naa ci lay wax mu mel nii accompagnement bi nga xam ne al irada mi koy def jëmale ko ci daara yi lu mel ni jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi association bi moo moo leen di fay mel ni salaire yi nga xam ne bu ngi koy verser foofu te buñ koy wàññi yaakaar naa juróomi daara la lu mel ni daaru mi nam Euh, ak euh, alimul xabir ak euh, tanzil ak daara njàppandal juróomeelu daara ji mooy daaru ngaabu moo ci yokk donc boobaak léegi nekk salaire yi weer bu nekk ñu koy fay loolu lenn la ci liggéeyu al irada ba ca tegu mooy xew-xew yi nga xam ne mooy am lu mel ni korité Euh, julli korité bu amee euh, algrada dafa am ay wàccuwaay yoo xam ne dafay koy def ci daal yi lu mel ni euh, ay xéwal yi nga xam ne ci jamono ji moom la jëfandikoo nga xam ne mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi tamit duñ sante ne ñu ngi ci daara day mel ne ñu ngi ci kër loolu it sëriñ bi di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ba ca tegu it mooy tabaski dañuy faral di taxawu daara yi nag ci gàtt yeeg ak eh, yu ni mel tam xarit it na ko noonu ak eh, ci yeneen fànn tamit eh, ak iraada mi ngi ci taxawu daara yi yooyu mooy activités yi nga xam ne daal tàmbali nañ ko te sax na depuis bañ tàmbalee activités yi daal la mbir yi toll sëñ Maxaar euh, yi. est-ce que amoon nañu ay ci yoo xam ne nii am na yoo xam ne nii fa ngeen a jëm yi bari na ndax jamono yi ni ma ko tàmbali woon ci waxtaan bi dafa mel ni euh, activité économique yi am na lu ñu ci tàmbali woon waaye dina nekkaat nag di tëggaat yeneen plan stratégique yoo xam ne dina ñu permettre. buñ tàmbali waatee ñu mën a ndax jamono yi lu ci ëpp ci ay cotisation la le membre yi di def nga xam ne ci kër gi lañ parce que jar euh, association Al Irada kër gi la génnul kër gi ñenn ñaa ngi fii Sénégal ñi ca des ñu ngi ci diaspora bi ay jàmbaar dëgg di ci contribuer bu baax a baax Euh, yeneen perspective yi dafa nekk euh, ay euh, projet yoo xam ne bëgg nañ ko mettre en place bu defee tey kër gi dinañ ci gën a mën a sentir seen bopp gën a am ci fañ bëgg a dem incha allah ñaan suñu borom defal ñu bu baax a demee soxla noonu la toll boobu tamit ñun ñëpp. lay boo ñëpp ci war a tàmbal suñu jëf ñoo ci war a tàmbal suñu bopp te loolu mooy kër gi te ku wax kër tamit dina wax kuréel ci mbirum kuréel yooyu nag la sëñ Jiidi Njaay di ñëw leeral ñu doxaleelu kuréel yooyu nga xam ne nii moo am kër gi sëñ Jiidi Fatou أعوذ wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin alhamdulilahi alladi yusalli ala nabiyi almuntaqa almusalli salla wa sallama alayhi llahu fi lali wa sahbihi wa man wala bokki jullit yi bokki taalibe yi murid yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyoo di leen ziar di jiital ci nuyoo bi alxalifatu am yi tarixatil muriidiyya Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te mbir naka noonu di ko ñaanal xalifa Cheikh Salih di Sëriñ di ko ñaanal rakkam yu baax waaye itam di ñaanal sunu sang bi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Sëriñ Saliou yàlla yàggal ko fi lool tam ànd ko wér ba naa lim am ngir liggéeyal maamam liggéeyal way juróom yi tedd yi suñu borom defal ko ci lu kawe njortam tam ànd koog ñun di yëkkati ay kàddu rek ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi jiitu wala ko ci Cheikh Mouhamadou Bachir mu def benn introduction bu am solo ci wax ci ndono yi gaa baax yi di ci indi firnde benn rek balaa ñoo dugg ci waxtaan bi ndax liggéey bi bi nga xamee ni jot na ci ñu dem ci xelkom ju njëkk sax Maodo Matula ay kàddoom yu njëkk lim ñu wax taalibe yi mooy liggéey bi sosu ko liggéey bi dama fekk suñuy liggéey la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa la ko suñ borom ci loxo jaar ci gaa yu baax yi ba ak ci Cheikhul Khadim naka noonu yooyu juróom tëdd yu jógee moom tamit ci tànk yooyu rek lay jaar kon ñu xam ne sëñ Mouhamadou Bachir Faye njëkkee loolu lu mat bàyyi xel la liggéey la boo xam ne euh, alquran dafa bañoon gaa yooyu di wax ni inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun euh, ñun daal dañoo fekkoon suñuy bàyyi rek di def dara ñu def ko waaye bokk nañ ci ñooñu ñu daan def ci ay biddaag yoo xam ne dëppwul ak lislaam waaye nag ñoom reconnaître woon mooy ñi a walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alxaqna bihim zurriyatahum loolu yi mooy nga xam ni mooy li Cheikh Mamadou Mourtada ànd ak ñi nga dañoo jëblu ci moom te jaayanteeg moom àddina ak àllaaxira Cheikh Mamadou Mourtada yëpp ñi yaakaar te rafet njort bu baax ni dafa ci yi ñi Sëñ Tuubaa doon wax durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa mujtahidu tejtahidu ba loolu moo waral lim siq ak képp koo xam ni wax nga ko aslamtu nafsi mooy teg la ci aw yoon eh, jàngal la sa diine waaye jàngal la ak taalibe waaye jàngal la itam ak nit Euh, ni ñu ko waxee kër gi Cheikh Mouhamadou Mourtada mbooleem koo xam ne jébbalu nga ci moom jaayante moom euh, te dëkk fi barab euh, barab yooyu fenn fu nekk am na fa ay ay ay daayira mooy yëpp Dakar Thiès Mbour Kaolack Ndar Lagambal Massar biir ni ko waxee rek fépp foo xam ne ci réew mi rek dañuy bañ a dugg ci lim bi duñ matal yëpp waaye fépp ci réew mi foo xam ne région am na fa wala dëkk sëñ bi am na fa taalibe daayira yooyu itam képp ku jébbalu dana fexe nga jokkoo ak ñoom ngir mën a tàbb ci liggéey bi kër gi itam ni muy doxe bokk na ci liggéey yi nga xam ne am nañ ko mooy màggal ak gàmmu ak woote xelkom bi ak li ñuy wax wàccaayu daara yi bu koor jute jubee mooy yi nga xam ne daayira bi dañ koo am ay activité yoo xam ni loo xam ne lu annuel la euh, niñ ci doxee itam weer wu nekk danañu daje waxtaan ni ñuy jëmalee daayira bi kanam yi jëm ci màggal yi ak gàmm yi yooyu lu ci nekk danañ am ay sas yoo xam ne daayira ñoo ñoo koy sasoo ngir bu ñu àggee ca loola ñu man ko jëmmal comme ni ko sëriñ bi bëggee benn ba ci ba ci màggal gi mu am tamit structure boo xam ne daayira am na ko muy organisation ay commission yoo xam ne am nañ fi organisation am na fi culturel am na fi communication am na fi hygiène am na fi wàllu euh, charcuterie am na fi waañ wi ak waañ commission boo xam ne ñoom ñoo yor waañ am na fi commission bu ñuy wax distribution am na fi commission bu ñuy wax euh, plonge mooy wàllu setal ak yooyu yëpp am na fi commission santé itam am na ci kër gi nga xam ni ñooñu commission yi mu lim kenn ku nekk su xew-xew amee ci kër gi ñoom ñu sëq liggéey boobu danañ ànd xool seeni soxla ñu faggul leen ko ba lépp lu war ca loola ci liggéey boobu ñoom ñu def ko noonu la ñuy doxe ci biir màggal gi ak ci biir gàmm yeeg xelkom yi yépp noonu lay demee kon euh, loolu da gis ni rek euh, lu leen sëriñ bi euh, tàggat la aw yoon woo xam ni wan na leen ko ngir mbooloo mënta ñàkk bu ñu àndee ñu fexe ba tënk seen bopp organiser seen bopp ba lépp loo xam ni song nañ ko ñu mën kon loolu mooy activités yi nga xam ne am nañ su ko defee euh, léeg-léeg ñu am ay ndigal ndigal yoo xam ne day bàyyikoo ci sëriñ bi ndax lu mel ni université bi nga xam ne danañ ci joxe bi nga xam ne moo fi mujj mu Mamadou Mountakha bi mu fa wootee euh, Cheikh Mamadou Mourtada woon képp koo xam ne jaayante nga ak moom euh, sas sas woo xam ni moom ak ay taalibeem dañ koy jébbal mu jëm ci liggéey boobu lu mel noonu am na ni ko waxee léegi daayira daara iraada bi kazalika noonu naka noonu bokki taalibe yi ñooy dajale seen àddiya dem ci waaye yooyu yëpp boo ko xoolee amul lenn loo xam ni sëriñ bi tegoon na ko ndax way juróom yi teg teg na ko eh, taalibe yi ndax sëñ Saliou daan wax ni joxe bi moo jiitu laaj bi joxe bi moo jiitu bi ndax nanguwul sax daal di laaj doxin woowu képp it la si am Mouhamadou Mourtada amee ndax boo xoolee euh, ci sas euh, ni bu bu mosee woo taalibe yi sas leen ci ñaar yi laa ko mos a gis mooy bi ñuy defar kër soxna su gaawaan gis suñ saali woote ci la woo taalibe yi sas leen ñaareel bu mooy euh, daara daara ju mag gi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mourtada woote yeneen yi ci topp liggéey la boo xam ni dañoo war euh, nga xam ne képp ku jaayante amatoo ci yow amatoo ci sa bopp dara loo xam ni moom nga ko ci sa bopp ndax li ko euh, suñ joxe al muridu man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay'an te liggéey yooyu ñu wax yëpp mooy daara ngaa boog yeneen yëpp euh, lu ci nekk rek bi mooy njëkk jëfe ak ah, jël jël alalam def ci te defe naa ba léegi sax ñun duñ ko dox liggéey la boo xam ne li sëñ Saliou waxoon yoon wi nanguwul dem leen ba noppi nga ñëw yow yaay jiitu ñu lay toppatoo ci kon doxal na wala Cheikh Mamadou Noto kon ñu ngi di leen wax ne ñu ci suñu kanam sëñ bi wax na ko bu yàggul ndax yii ñuy def lu mel ni màggal ak jàmm moo ki xel koom loolu. daanaka lu annuel la loo xam saa yu bis bu ñëwee rek mënut a ñàkk ñu ñu def ko waaye nag dañoo am ay liggéey yoo xam ne ñu ngi ci suñu kanam du ñu jógee ci ngaaw am nañ yeneen xel comme war nañoo yeesal daara yi war nañoo tabax ay forage war nañoo war nañoo war nañu kon laxasaay yi jar nañu yeesalaat ko takkaat ko te xam ni fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab amul noppalu sa yu ñu sëlmalee rek dañoo war a kàmbaraat kon ñu ngi soññ bokk taalibe yi di wàcce foofu kàddu yi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf looloo tax euh, lépp loo xam ne nii sëñ bi sumb na ko rek ñun ñoo ci war a tooy loolu ci loolu la ñuy woo taalibe yëpp di leen euh, soññaat ci liggéey yi ñuy nangaawu euh, bi ci iraada bi ak kuréel yëpp pour ñu ñu jàppale ci suñu sang bi nga xam ne nii suñu jàmm rek la ñu suñu texe la ñu bëgg. di rafetlu waxtaan wi nga xam ne nii commission culturelle bi nga xam ne Sëriñ Daouda Sarr moo ko jiite moo ko initié woon tey pour euh, leeral indi benn leer ci liggéeyu Cheikh Mamadou yi fi wax ne waxtaan wi nii tëddee ñi nga xam ne nii ñoo nekk intervenant yi ci kenn amul xam ne nii rek bëgg ko ci yokk ñoo ñu yëkkati jotaay bi. voilà.